asalaamaaleykum mbokk yi nga xamante yéen ñu saxoo chaque jour duñu topp ci seen site internet euh, baoltimes.com ñu am tamit benn télé boo xam ne télé web la di Baol Times TV tey nag ñoo ngi amee mbégte di ak kontaan di dalal ki nga xamante ni mooy Mbenda Gueye di responsable politique APR fii ci diwaanu Ndiarème Mbenda gannaaw buñ la nuyoo ba pare Mbengue fi mu ne jamono ji e, njaareem benn riir rek a fi nekk muy élection législative yi yow nga am benn taxawaay boo xam ne ñëpp la xam benn ciment nga benn yoon nga tooy boobu ba léegi e, wax ji bëri na loolu nit ñi nee nañ Dame jóop du e, nekkatul léegi mandataire APR fii ci département bu Njaareem gannaaw bi référendum bi rek la woon yow loolu ngay ànd ak daam Diop lan nga ci tontu. Hmm, mooy coordonnateur départemental APR te nag wax dëgg yàlla ça lui revient de droit puisque Dame Diop moo samp fii APR ci Diourbel samp loolu ak loolu balaa APR dafa samp Diourbel rek jóg rek bëgg Diourbel jóg bëgg njaareem jóg am yar ami teggin am xam-xam te lépp lu muy liggéey fexe ba Diourbel jëm kanam rek la ah, ah borom li ñuy wax nag borom kànja day neex maafe yàlla boole ñoo président Macky Sall ndax ñun ñëpp dañoo nekkoon Dakar di góorgóorlu di liggéey président Macky Sall ba muy wër réew mu ne ku nekk nanga dem fa nga xalaat ne foofu la say mbokk nekk fa nga xalaat ne fa la jàppale ma gën a neex nga toog fa jàppale ma daanaka man de sama ñibbi si njaareem loolu moo ko indi bëgg jëm ci base bi. kon Dakar nga nekkoon. waaw foofu laa liggéeyi woon bi may jàng ba ma demee ba njàng mi taxaw damaa dem liggéey. tubaarkàlla tamit liggéey bi tamit wanuma ko gannaaw damaa am ñu may liggéeyal foofu parce que am na ci loo nga xam ne euh, maa ko fa am di dem ak ñëw di ko xool bu ma bàyyi woon liggéey fii duma lekk du ma naan puisque mën naa ne man politique yoruma aw ma ci salaire aw ma ci journée aw ma ci contrat aw ma ci lenn lu dul nag bëgg cee liggéey rek te yàlla tax te xalaat ne nag nit fu mu yàgg di fa yàlla yàlla dana ko fa fekk kon daam jo ah man de xaw ma bu fi Dame Diop nekkatul mandataire nekkatu fi lenn kon ku koy nekk yàq de bu jëlee gan sof mhm. gars yi nag sax wax ci biir loolu lu tax ñu bari ñu ko xarab mooy maanaam euh, ñu ko gisee maanaam doxalinam ak ki nga xamante ni mooy meerum njaareem tipp la. loolu loolu day am loolu day am gis nga euh, heureusement ba pré ba ba monsieur le maire amee xel am xol bu jàppale président Macky gis nga dëkk maire mënu koo defar wala nga nekk milliardaire. te milliards ya ngay war a mën a am ba yor sa dëkk di ko defar sans les mains de l'État boo ko ca man boo ko amee danga ko doo ko ca néeg a def dëkk bu dox dëkk état koy doxal dëkk état moo koy doxal président euh, euh, euh, monsieur le maire Malick Fall suñu càmmiñ la suñu lépp la yàlla dogal gis nga nguur yàllaa ko yor ku ko neex lay fal bëgg a doon maire taxut a doon maire